nee na leen bàyyi leen ma jël ma image yi ma image yi Ibou Afia waay lii fa rafet mu daan waay kenn du moo waay suñu xale ba duñu gaañu kal ñu topp ma xale yi ñu xool kal ñu kal ñu xale yi ba duñu gaañu ndeysaan mir ba daa daanu taxawal nii rek kal ñu mir ba daa daanu ba xale yi gaañu wuñu waaye li damay fàttali xale yaa ngi ne ndeysaan ñu ngi leen di jàpp di leen yóbbu sapeur ndeysaan yàlla bu si kenn ñàkk ba kanam yàlla bu si si xale yi jëlal ma leen ndeysaan oh deret ba sang na ko oh métti na ndeysaan eh, li métti na waay ñu gën jege kàllu ñu gën jege xool xale yi ndeysaan indi leen ndeysaan oh ba kenn gaañu aussi rek ndeysaan oh Kalidou Muré stade ba daanu na Kalidou xala jeex jàmm ya gaañu nañu Kalidou xala jeex jàmm ya gaañu nañu Kalidou fële moom a am xale ja jàmm ya gaañu noonu kaalidu yàlla bu si kenn ñàkk ba kanam bu fekkee ay blessure rek alhamdulilah kaalidu